jërëjëf sëñ dégg nañ kàddu yi te rafetlu ko lool. jërëjëf mbokk taalibe yi sëriñ bi dafa wax ne jërëjëf sëriñ Abib si dégg na kàddu yi nga xam ne sëriñ Abib yëkkati na ko mu nekk kàddu moo xam ne mooy kàddu mbooloo mi. mu ne te kàddu yi sëriñ bi nee na rafetlu na ko lool. dégg nañ ko itam. mu ne maanaam mu ne dégg na it maanaam bu baax a baax. yëg nañ ko bu baax a baax mu ne yëg na ko bu baax a baax. soññ nañu it. mu ne soññ na ko it. soññ na nu itam. mu ne soññ na ko itam. ci lépp lu jëm ci lu baax. mu ne ci lépp lu jëm ci lu baax. kon bala ñoo wax dara dañuy gën sant. mu ne kon bala ñoo wax dara dañuy gën a sant. ci kaddu yi ci kaddu yi nga xam ne sëriñ Habib si yëkkati na ko. dégg ko bu baax baax. mu ne dégg na ko bu baax a baax. mu ne sëriñ Habib sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu di nuyu mbokk yu baax yi nga àndal. gàttandu ak cant ak ngërëm. mu ne di leen gàttandu ak cant ak ngërëm. Eh, xam nañ yitte ji leen mu ne xam nañ yitte ji leen yëkkati. ak jéego yi ngeen def. ak jéego yi ngeen def. ak jataay bii ak jataay bii. xam nañ ko bu baax. mu ne xam na ko bu baax. ak cant gu rëy rek ci moo ci moo moo jóge ci man. mu ne ak cant gu rek rek mooy jóge ci moom. defal loo xam ne. mu ne da ngeen ko defal loo xam ne. dootu ko ma fàtte mukk. mu ne dootu ko fàtte mukk. dama leen woo ci lu baax. mu daf leen a woo ci lu baax. woo leen ci jàmm. woo leen ci jàmm. woo leen ci yitte. woo leen ci yitte. ngeen wuyu ma ci. ngeen wuyu ko ci. wuyin wu rafet. mu ne wuyin wu rafet. muy dëgg ci yéen muy dëgg ci yéen. loolu dootu ko fàtte mukk. mu ne loolu dootu ko fàtte mukk. waaye na ngeen xam ne loolu. mu ne waaye na xam ne loolu. bor bu ma leen amee bu ma leen ameel mu ne na xam ne loolee bor bu mu leen ameel la moom. waxuma sax yéene ju ji. mu ne waxul sax yéene ju rafet ji. yi nga xam ne moom ngeen fi fekk. mu ne yéene ju rafet ji nga xam ne moom ngeen fekk ci moom. waaye dama koo jàppee bor. mu ne waaye loolu daf ko jàppee bor. bor bu rëy. bor bu rëy. bu ma leen ameel. bu mu leen ameel. boo xam ne itam boo war a am jom mu ne bor boo xam ne boo boo. bu mu war a am jom war a am jom la. mu fay leen ko mu ne loolu nag diisu ko kenn mu ne diisu ko kenn ku mii dafa ko dindi mu ne ku dul suñ borom mi dafa ko dindi ci barkeb Sëriñ Tuubaa ci barkeb Sëriñ Tuubaa loolu rek la loolu rek loolu rek laa ñaan mu ne loolu rek la ciy ñaan euh, bor boobu mu leen mu ne bor bi mu leen ameel day ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa day ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla gàtt nañu ak tawfeex yàlla gàtt nañu ak tawfeex ba mu mën leen koo fay loolu rek la mu ne loolu rek la jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mi ngi sant bu baax nee na mi ngi sant bu baax a baax mune ne sedd na. xel dal na mu ne xelam dal na. mu ne yaakaar mit dolleeku na. mu ne jërë ngeen jëf. mu ne mi ngi leen di ñaanal yéen ñëpp nag. yàlla mii dafa ko dindi. gàttandoo leen ak tawféq. gàttandoo leen ak tawféq. seen mbir yëpp. seen mbir yëpp. seen mbir yëpp yéwén tabarkeel. mu ne li ngeen di yëngatu. yàlla dafa leen ci barke. dafa leen ci ndam. mu ne loolu rek la leen ñaanal. mu ne li ci des nag. ñoom mi ngi fi. ñoo bokk taxawaay bi. mu ne ñoo bokk taxawaay bi. ci lislaam ci réew mi ci bëgg réew mi. ci bëgg réew mi. defaru defaru. mu jëm kanam. mu ne loolu nag. na ngeen xam ne. fii ak mi ngi nooyi. mi ngi koy ànd ak yéen. incha allah mu ne li ci kem kattanam. mu ne dana ko jëfe mu ne loolu ab dig la. loolu incha allah. ci loolu rek lay ne. sama digganteem ak yéen jërë ngeen jëf bisimilah. mën na ci lu weesu ñëpp tàllal seen loxo. bisimilah